Gueye Jacob Baldé ndeysaan ak Malick Diouf loolu combat revanche la dimanche passé ndeysaan ñoo daje na fële ci terrain Gaal gi ndeysaan Jacob Baldé mu am ndam ci kawam la revanche par procuration Jacob Baldé ndeysaan à droite Malick à gauche waaw waaw moo jàkkaarloog yéen Malick moo leen wan ginnaaw Jacob mooy mbor bu xas Waouh, dimanche le 27 octobre 2024 fii ci waouh. Wow, Gui waaw na fut lan banuna na ndoram e pas ba nous du ko xaye gor ba manona Jacob Aldak Malick deuxième journée de la saison première aux arènes seconde de Grand Yoff waouh. ah. waaw waaw Jago Baldé ak Malick waaw waaw ndeysaan konku ko fan secret de Mbine Yalane TV di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay waaw waaw ndeysaan tey nag dañu am daj bu rëy waay ndeysaan père Pascal repose-toi en paix que Dieu vous accueille dans son paradis le plus céleste jégal bépp rëjërëj wa inchallah nit ku baax ndeysaan waaw waaw Pascal bu mbi ni alaan mu wàññeeku tey ndeysaan di ko jàll rek ay mbokam ak ak waa mbi ni alaan yëpp ndeysaan yal na ko yàlla yërëm Malick Ngom ak ndeysaan Jacob Baldé jàppante nañu ku nekk am na ñaari ngemb waaw waaw ndeysaan Jacob à gauche Malick à droite Jacob à gauche Malick à droite waaw waaw ndeysaan aha ndeysaan waaw waaw aha korok en jambe may na Malick ak Jacob Baldé Malik ak Jacob Baldé ndeysaan waaw waaw aha cabaxal ba cabaxal ba weeru waaw waaw ndeysaan Jacob daan na ko Jacob Baldé daan na ko waaw waaw ndeysaan